ñu gis démb ci réew mi di république dominicaine ci la l'observateur xëy ubbil yéenekaay bi benn nappkatu dominicaine bu toll ci fanweeri at sa moo doon dox ba yem ci genn gaalu looco gu teer ci waaxi Rio San Juan ga ca république dominicaine waa ji yër gaal gi fekk ca fukki nit ak ñeent yu faatu ba seeni yax rekk a des ñoom ba mu xoolee xool seeni bagage l'observateur ne nañu ci la gis ci ñoom ay identité yuy wane ne ñoom ñi ñu fekk ñu faatu ci biir 33 ans fekk nañu ci seeni bagage fukki sase ak ñaar yoo xam ne budul cocaïne di héroïne éléments yi enquêteurs yi gis ca gaal ga wane na ci lu amul benn sikki sàkka gaal gi gànnaar la déparé woon enquête dina kay ne waaye teere ji ca waaxi Rio Juan ga ci république dominicaine ak fukki néew ak ñeent journal quotidien xëy di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk ba bind ne fekk nañu ci genn gaalu looco gu teer ci république dominicaine fukki néew ak ñeent pas-pas gi gi moom ak ñeent yi ak inondation gi ndaw yi réew mi di dund téemoñe nee nañu ñoo ñetti équation maanaam ñetti jur jàng yi sëkkatal jomaay fay ak sonko leen génne ca kaso ba ñoom ñaar ñooñe di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ci kaw li ñu tuddee protocole bu Cap Manuel seen digg ak Macky Sall mi ngi ñuy wax li ci lomtee affaire bii di Ousmane Yara liggéey ba tax mu mën a am ci xibaar yu mu jële ci yéenekaay bii di Jeune Afrique ci la ñu xamee ne bu dul woon xalaat ak jéego yu ci Ousmane Yara def kon Ousmane Sonko ak Diomaye Faye seen gën a kaso du gaaw ndax Jeune Afrique nee na Ousmane Yara moo ne Macky Sall na ko bàyyi mu ak Sonko ngir ñu wut situation bi ndax Macky Sall da leen dajale woon wax leen yéene jumaam ngir bis bu demee ba di fi jugee mu bàyyi ci Sénégal jàmm bi Ousmane Yara proposition bi yéenekaay bi nee nañu Macky Sall ànd ca woon waaye Mariam Faye Sall moo ci jàpp wax ak moom dóor ko séance ba tax Macky Sall mujjee nangul li ko yara proposé woon ci la woowee maître Aïssata Tall Sall mi ne woon ci yooyu la jamono ngir mu lijjanti l'homme des affaires bi di Ousmane Yara a permis de visite ngir mu mën dem seeti Ousmane Sonko ca kaso bu Manuel yéenekaay bi nañu bi Ousmane Yara njëkkee dem ca kaso bu Manuel mënutoon a ak fa añ daje fa ak Ousmane Yara fekk ñoom ñaar xamante nañu bu yàgg condition yi leen Ousmane Sonko tegaloon mooy ñu libéré détenu politique yëpp tàmbalee ko ci Bassirou Diomaye Faye loolee moo indi loi d'amnistie bi Macky mi def loolee point acte mi ngi wax ne laata mu fi jóge la salfaañe carte ba yàqalaale ñaar ci kàngami politique yi ci réew mi muy Idrissa Seck ak Barthélemy Diaz journal bi dem ci ba sampo laaj laaj bi mooy est-ce la ci ñoo xam ne seen bëgg-bëgg mooy ñu boole ko def ko benn ngir rationaliser calendrier électoral bi rapport finalu assises yi fi doon def jëmee ko ci wàllu justice journal L'Info ngi wax ne ñàkk déggoo gi mi ngi ci réforme gi ñu bëgg indi ci conseil supérieur de la magistrature gi li ñu ci bëgg mooy ubbi ko dugal ci ñeneen ak it li ñu waxagul leer ci ndax président de la république dafay continuer di présider conseil supérieur de la magistrature am déet yi tagga ngi ci source wa yëral xët mu njëkk yéene kay ba mu dagg réunion ba ne gars yi continuer leen ndax dama war a dem primature dañu ma woo léegi ne ma climatiseur Ousmane ko dafa paan